Bonjour, chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International. Bienvenue dans cette page de l'information. Les financiers ont désormais un repère, une référence mensuelle euh, qui leur permettra d'étudier les statistiques et d'évolution de l'économie du Sénégal. En effet, face au manque de spécialistes et de référents dans le secteur de l'économie sénégalaise, Dr Abdou a décidé de procédé au lancement officiel du magazine économique et financier intitulé Le marché. Le mensuel édité à par l'agence Africa Media Finance est un support pour instaurer, renforcer le débat économique, mais aussi pour que l'économie et la finance puissent occuper une place beaucoup plus importante dans les médias en général. Pour la quatrième fois, l'État du Sénégal va célébrer la journée du dialogue national. La cérémonie se tiendra demain mardi 28 mai au Centre international de conférence Abdoul Diouf de Diamniadio avec comme thème euh, la réforme et la modernisation de la justice. Cette première sous l'ère du président Bassirou Diomaye Faye, la matérialisation de l'engagement du chef de l'État de tenir des assises pour une réforme profonde de la justice pour plus d'indépendance. Ce dimanche 26 mai, une marche en soutien au peuple palestinien a été organisée à une manifestation qui a vu la participation de centaines de citoyens sénégalais qui ont escandé Free Palestine, le rassemblement pour la vérité Andu Ci Dëgg avec une forte délégation conduite par son secrétaire général Cheikh Oumar Diagne a CE et le concours d'entrée en classe de sixième précédemment prévu les jeudis 20 et vendredi 21 juin 2024 sont reportés au mardi 25 et mercredi 26 juin 2024. Ainsi, lors du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours pour l'année scolaire 2023-2024, tenu le samedi 18 mai 2024, Monsieur le Premier ministre a donné des instructions visant notamment à permettre la régulation des élèves non déclarés à l'état civil. À présent, parlons sur la page internationale. Selon les autorités du Hamas, au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors du bombardement par Israël d'un centre pour personnes déplacées près de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza. En Espagne, l'accord de sécurité signé ce lundi par l'Espagne et l'Ukraine lors de la visite officielle de Zelensky à Madrid comprend une aide militaire de Madrid d'un montant d'un million d'euros, a annoncé le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Et maintenant, avec la page sportive. Après une série de quatre matchs sans victoire, Guédiawaye FC a finalement renoué avec le succès en s'imposant de 1 à 0 contre l'US Gorée hier dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Cette victoire met fin à une période difficile marquée par trois défaites et un match nul. La 25e journée et avant-dernière journée de Ligue 1 sénégalaise s'est achevée ce dimanche Teungueth FC a été sacré champion après sa victoire sur Génération Foot de à 0, un titre en placement mérité pour le club rufisquois qui a réalisé un bon parcours dans le bas du tableau. Diamono Fatick a assuré son maintien en battant Gaza Esport de 1 à 0